Thank you. internetu Pikini production ñu ngi leen di nuyu comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii Petersen fii nag lakk bu metti moo fi am lakk bi mi ngi commencé 7 ba tey jii nii fayul lu ëpp ñetti oto sapeur pompier sapeur pompier yaa ngi ñëw di dem nee leen seen ndox dafa jeexoon li nit ñi taxaw li ñu wax nee leen dañu dem utiwaat ay ndox sapeur pompier yaa ngi ñëw waaye taxawul lakk bi arrêté ba tey ñi ñu gis nag ñi nga xam ni ñoo ci gën a ñàkk bokk na si chinois yi ñoom seen boutique yi lakk na bu baax moo tax fu mu nekk nii ñi ngi rawale seeni bagage yi waaye ba tey lakk bi taxul mu fay ñu won leen lan moo fi jot a xew ak euh, ñi nga xam ne jot nañ fee yàqule. jot ngeen gis oto sapeur pompier bi ñu leen wan si ginnaaw tamit yéen a ngi gis sapeur pompier yaa ngi taxaw di xool nit ñi ñuy sàndante seen bagage dafa mel ni ñoom fu nekk nii seen xalaat dafa jeex gisatuñu ndox boo xam ne moo war fay lakk bi te lakk bi ba tey jeexagul sapeur pompier yaa ngi taxaw nit ñi ku nekk yaa ngi def sauve qui yaa ngi indi oto yaa ngi indi lu nekk di buub say bagage loolu nañ gis suñu ginnaaw

vai, vai, vai.